Cheikh Niass kañ la ko Macky Sall gëj dimbali ci xaalis pour mu fay salaire am. ça veut dire quoi. dama ne ñay lañ laaj Cheikh Niass kañ la ko Macky Sall gëj a jox xaalis pour mu fay ay salaire am. loo bëgg a foofu j'ai pas trop compris. ah xam nga li ma wax dama ne waa waa wal fa ña fay liggéey. daa am lu Cheikh Niass seq ak Macky Sall. mais mais bu yàggul la ko bàyyi di ko dimbali ngir mu fay salaire kon bu fekkee daa am kuy sa ku bëgg a faagaagal wal fa ji du Macky Sall wal fa ji moo faagaagal boppam